a reçu des ordres à le président est à Bakel. Oui. On, on doit bloquer. Si le président est à Bakel, nous, on ne doit à Bakel. C'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. Dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel. Ah, euh, on, est, on est à 14 km de Bakel. On est à 14 de Bakel. On vient de nous demander d'arrêter le convoi parce que tout simplement, le, la hiérarchie leur a demandé de nous stopper. On ne sait pas encore le motif avancé. Ce qui est clair, c'est que nous, nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a les sinistrés qui sont à Bakel. Voilà, Bougane mi ngi demoo di lekk Fapal Bougane mi ngi dem Fapal bloqué. Nous marchons, nous marchons. Non, mais non, arrêtez-nous. Mais dans ce cas, arrêtez-nous. Non, arrêtez-nous. S'il vous plaît, non, non, faut pas Dans ce cas, vous n'avez qu'à nous arrêter. Mais non, quand, quand, quand des heures, quand des heures sont... Nous allons marcher sur Bakel. Arrêtez le convoi, même il a pas de Ne nous bousculez pas. damay dox damay dox pour dem Mbacké arrêtez-moi arrêtez-moi non si vous allez nous arrêter non on est des Sénégalais on a on a on a la possibilité de marcher s'il vous plaît vous n'avez pas le droit de bloquer notre place arrêtez-le nous allons à Mbacké nous sommes dans un pays démocratique vous devez laisser parler tranquillement il faut laisser le président laissez le président allons marcher nous allons à Bakel ñu koy buuf arrêtez nous da ngeen ñuy jàpp wala ngeen bàyyi ñu koy buuf da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll arrêté nous arrêté Arrêtez-nous, Qu'est-ce qu'on en fait Arrêtez-nous. No, no, no, Cette situation est derrière, est derrière nous. Cette situation est Chef, la situation est derrière nous. La situation est derrière nous. Chef, que l'on fait, la situation est derrière nous.

Sonko comment descendre Regardez, regardez, regardez-moi, regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. Laissez-le, laissez-le. brutaliser. Mais c'est quoi ça Mais Jamba, oh, eh. il sera tout le temps président. Il sera tout le temps président. Il sera tout le temps président. Il sera tout le temps président. C'est bon. Il sera tout le temps président. Chef, mais chef, Jamba, viens. mais kii mais dama nangu yoonam mais dama bëgg a.

Vous n'avez pas le droit. Aucun droit. Vous n'avez pas le droit de la Vous n'avez pas le droit de la dictature. On pousse, on pousse. Benzaru Jambon, Benzaru Jambon, Benzaru Jambon, man tam ba Babacar Ngom yow tamit nga fekkee li nga xamante ni moom moo di convoi bi ak arrestation Bougane Gueye Dany aujourd'hui lan moo sa sa première impression. alors fekkee nañ ko ndaxte ni ko Thierno Bocoum waxee ñun dañoo jug jàpp ci suñu wareef ñu dem jàppale suñu mbokk sénégalais nekk ay sinistré diggante euh, Podor diggante Matam ba war a dugg fii ci Bakel ñu egg si ba fii. xool leen tourné leen ngeen filmé leen ñu ngi ni taxaw barrage la ñuy def mais avant de nous barrer ils ont pris le soin et le temps de nous malmener et surtout pire encore ils ont arrêté l'un d'entre nous Bougane Gueye Dany c'est la coalition sàmm sa kan ñun dañoo jàpp ne liy farata fi ñu toll mooy dem jàppale les sinistrés defuñu lu ñaaw defuñu lu bon waxuñu lu ñaaw nekkuñu fi pour yee fitna au contraire démb rek lañ ko wax nous nous sommes une opposition responsable mais ñoom force dañoo bëgg a indi coono ak li li ñuy wax naan kaay leen ñu cooki ci loolu la ñu bëgg a woo te lii moo koy wane c'est difficile parce que jàmm lañ bëgg ci Sénégal mais nag l'histoire retiendra que de façon très malheureuse ils sont en train de piétiner la démocratie de notre pays. Et on s'est battu, il n'y a même pas longtemps de cela, il y a sept mois, il huit mois, il y a un an de cela. On s'est battu pour jëlee fi lépp loo xamante ne mënoon na salfaañe suñu démocratie bu réew man de amoon naa yaakaar ne lu mel nii doot ñu ko dundati surtout excuse bi mu joxe liñ ñu wax ñun ñu koo dégg ne parce que le président de la république mi ngi Bakel ñun ñoo yegg Bakel. mais bu doon loolu président la république Dakar la dëkk ñun ñi ngi dëkk Ndakaaru ak ñoom donc lu xel mënut a nangu la vraiment ñi ngi ñaawlu lii fi xew et nous espérons qu'ils vont revenir à la raison. Madame Diack, que nous pouvons rien faire d'autre à part nous rester ici et attendre, appeler les personnes qu'il faut appeler, essayer de les amener à la raison. Parce que on ne peut pas ne pas aller à Bakel. jóge wuñu Dakar 4 heures du matin. 900 kilomètres 900 kilomètres ñëw ba fii Buntu Bakel à 14 kilomètres de Bakel ñu ne ñu doo dugg. ñu dañu ñëw indaale suñuy denré indaale loo xamante ni dañ ko soxla indaale ay eau de javel indaale ay saaku cest dire que dañu ñëw pour jàppale leen dañu ñëw pour nekk seen wet mais on se battra pour arriver quand même à à à on ne peut pas retourner comme ça ils ont besoin de nous. ils ont besoin de nous et ils doivent libérer Bougane

libérez, libérez, libérez, libérez